ñaar Korent saar benn tey bu ngeen ma mënoon a muñal ma wax leen tuuti waxi dof waaw muñal leen ma sax dama leen di fiire ak fiiraange gu jóge ci yàlla ndaxte dama leen a bëgg a jébbal jenn jëkkër képp muy kirist ngeen seet ni jànq waaye ni jaan ja naxe awa ci pexeem ragal naa yéen itam ñu lambaaje ni seen xel ba ngeen dëddu xol bu laab bi ngeen amoon ci seen diggante ak kirist ndaxte bu kenn ñëwee di leen waar ci yeesu ci lu juyoo ak li ñu leen yëgal walla ngeen jot meneen xel mu wuute ak xel mi ngeen jot walla ngeen nangu beneen xabaar bu wuute ak bi ngeen dégg dingeen ko dékku bu baax mona foog naa ne seen ndaw yooyu ngeen yëkkati ba ñu ëpp ndaw sax ëpplewuñu ma dara bu ma dul jàmbaar yi wax it néewuma xam-xam te won nañu leen ko ci bépp mbir ak ci bépp fànn walla boog ndax dama leen a tooñ ci li ma suufeel sama bopp ngir yëkkati leen ba ma leen di yëgal xabaar bu baax bi te laajuma leen genn pey xanaa kañ dama tooñ ci li ma dunde alalu yeneen mbooloo ñi gëm ba futti leen ngir dimbali leen yéen te ba ma nekkee ci yéen te soxla dab ma weeruwuma ci kenn ci yéen ndaxte mbokk ya jóge masedwaan ñoo ma indi la ma soxla woon ci lépp moytu naa nekk yenn ci yéen te dinaa ko gën a def ni mu wóore ne dëggu kirist nekk na ci man ni la wóore ne loo lii may damoo kenn du ko teggi ci diiwaanu akayi gépp lu tax ndax dama leen a bëggul yàlla xam na ni bëgg naa leen noonu may doxale nag dinaa ci sax ngir nii damu di wut yoon wu ñu aw ba yemale seen bopp ak nun duñu ko am ay ndawi naafeq lañu di ay liggéeykët yu njublan yuy mbubboo turu ndawi kirist te loolu jaaxalunu ndaxte seytaane moom ci boppam day mbubboo malaakam leer kon nag ay ndawam mbubboo ndawi njub loolu duñu jaaxal des na leen fey seeni jëf maa ngi leen koy waxaat bu ma kenn jàpp nib dof walla boog bu ngeen ma ko jàppee sedd leen ma cëru dof ngir ma damu tuuti man itam loolu may wax nag waxuma ko ci turu borom bi bu ma ñimee damoo nii maa ngi wax ni dof ndegam ñu bari dañuy damu ni nit kese man itam kon dinaa damu yéen boroom xel yi ak ngeen mën a muñal ñi dof ndee yéen a ngi muñ ñi leen di jaamloo di lekk seen alal di leen nax di leen xeeb di leen talaata sunu néew doole mayunu nu dem ba jëfe noonu rus naa ci lool de ma wax waxi dof moo na lépp lu waay ñemee damoo ñeme naa ko manit ndax ebre lañu manit hébreu laa ndax bànni israyil lañu man itam ci laa ndax sëti ibrahima lañu man itam moom laa ndax surgay kirist lañu maa ngi wax waxi ku tàggoo ak sagoom nag maa leen ko gën a doon bu dee ci liggéey maa leen ci man bu dee ci li ñu nu tëj ci kaso maa leen ko gën a miin bu dee ci li ñu nu dóor ay yar maa leen ëpple leru naa dee ba tàyyi juróomi yoon yawut dóor nañu ma fanweeri yar ak juróom ñeent ñetti yoon dóorees na ma ay yet te mas nañu ma sànni ay xeer bëgg ma rey ñetti yoon dugg naa gaal mu suux mas naa yendu ci ndox mi fanaan ci ci sama tukki yu bari yi daan naa faral di daje ak musiba ci dex yi ak musiba ci sàcc yi musiba mu jóge ci sama xeet walla ci ñi dul musiba ci biir dëkk yi ci mànding yi ci géej gi ci biir bokki taalibe yu nafeq yi sonn naa di ñaq di fanaane xool di xiif ak amar tey fande di dekku liw te rafle waxaalewuma li ci des nag bés bu nekk maa ngi xalaat mboolooy ñi gëm ana ku ci néew doole te walluma ko ana ku ci bàkkaar te awma naqaru tiis su ma damu waree kon ci sama néew doole laay damoo yàlla bàyyi sunu boroom yéesu moom mi màgg ba faw xam na ni du ay fen ci man ba ma nekkee dëkku damaas boroom dëkk ba di jawriñu buur ba aretaas dafa santaane woon ñu wattu dëkk ba ngir man maa jàpp waaye dugalees na ma ci dàmba jaarale ma ci palanteeru miiru dëkk ba yoor ma ci suuf noonu ma rëcc ko